nag carte gi moom jaxasoo na loola yëglekaay bi di enquête moom ma ngay samp ab laaj ne Macky Sall ak usman Ousmane Sonko ana lu ñuy waajal ba noppi dellu suwaat nag ci yeesal yi ñu bëgg indi ci listub candidat yi rawatina njàqare goo xam ne rek conseil constitutionnel am na ko ci jamono ji nag ginnaaw décision bi nga xam ne rek moo tukkee ci juróom-ñaari yi nag jamono ji li ñu war a taxaw ci saa si tembe bokk na ci ñu daal di jàpp dat ci nu mu gën a gaawee nag ngir amal élection présidentielle yi yéenekaay bi di Vox Populi ne fukki candidat ak juróom benn yi nga xam ne rek ñoom la ñu tànn ñu war a dem ci jongante tey njiitu mi nag jamono ji may ñu jàmm état bu Sénégal ña ngay dal ci seen kaw nag di sàkku ñu daal di jàpp dat ci nu mu gën a gaawee waaye amal ab passation de service ci diggante njiitu réew mi ak ki ko fiy wutu laataa ñoo yegg ci datub ñaari fan ci weeru avril atum 2024 waa FC 25 nag la ñu bëgg rek mooy ñu daal di sàmmoon sàmmonteeg calendrier républicain bi nag di fàttali kilifa yi nag ci nu mu gën a gaawee ñu daal di jëfee la tukkee ca conseil constitutionnel ndax jàpp nañu ne nag dogal googee nga xam ne rek saa ji jël nañu ko lu ñu war a jëfee la nu mu gën a ndax diir bi ñu jëlee bi la dogal nag ñoom waa conseil constitutionnel ba fii ñuy àddoo ngeen di teewlu nag France ni xëddeen amul benn acte boo xam ne rek ba fii ñuy àddoo état bu Sénégal teg na ko te lu ñu mel nag nee ñu du dëgg du yoon leneen lu ñu fekk ci biir yëglekaay bi di Sud Quotidien bokk na ci Rose Wardini mi nga xam ne rek ma ngay xam ne ni daal bokkatul ci jongante bi moom moomee nag doonoon ñaareelu candidat bu jigéen bi nga xam ne rek waroon naa dem ci élection présidentielle yi nag professeur Ndiogou Sarr dip ci wàllu droit public nag bu Rose Wardini naam retiré na candidature am nag waaye mënta tee ñu amal élection présidentielle yi Rose Wardini nag jël na dogalu bàyyee lépp loo xam ne rek moo jëm ci wàllu xeex bi mu sumboon ak kii di Anta Babacar Ngom nag ngir mu wëyal combat bi Walf Quotidien di ko ne fi mu toll nii kay moom Anta Babacar nag moom rek moo des ci jigéen bi fas yéenoo gàlloo combat bi nag ngir mën a taxawal jigéen ñi nag ci élection présidentielle yi lu nu mel nag di fësal jafe-jafe yi ñuy laam-laamee nag ba tey ci wàllu double nationalité bi nag Lamine Thiam bokk ci waa parti démocratique sénégalais ne candidat yu bëree bëri fi mu ne nii nag bu ñu leen saytu woon am na ci ñoo xam ne nag yor nañu ñaar ba ñett ci ay nationalité tribune yëglekaay dellu soir ci situation politique bu Sénégal dialogue bi nga xam ne rek jamono jii ñu ngi koy waajal càkkuteef gi nga xam ne rek waa parti démocratique ñu ngi koy sàkku ak waa coalition K24 naka noonu itam candidat yi nga xam ne rek jamono jii bëgg nañ ñu amal élection yi balaa ñaari fan ci weeru avril ak Macky Sall mi nga xam ne rek fi mu toll nii dañu ko sës si miir bi nag addu jëmale ci libération bi nga xam ne rek moom la ñu libéré ay détenu yi nag l'observateur ma ngay dellu siwaat ci coow li nga xam ne rek moo tukkee ci kàddu yi détenu yooyee di yëkkati nag ginnaaw bi ñu leen génnee ci kaso bi ñenn ñi nag naam yoo xam ne rek jamono ji ña nga maison d'arrêt et de correction bu Ziguinchor soobu nañu ci ab grève de la faim bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di libération nag am na ci fukki soxna ñaar yoo xam ne rek ca la ñu bokk am na ci itam ay mineur naka noonu Amadou Sané mi nga xam ne rek mooy maire bu Jakunda doon it responsable Pastef ca diwaan ga ñu wax quotidien moom dellu siwaat na nag ci protocole bi nga xam ne rek moo jëm ci libération détenu nag ma ngay xam ne ne am na kenn koo xam ne rek ma nga doon xaar ab liberté provisoire am juróom-ñaari fan ci weeru bi nag ci noonu ne garde moom tey jii fas yéene naa jàkkaarloo ak way taskatu xibaar yi ngir dellu siwaat nag ci lu jëm ci libération yi ñeel ñi nga xam ne rek dañ leen a tëjoon ci kaso bi jeexalee yëglekaay yi ak taxaw seetlu gi nga xam ne rek tey jii yëglekaay bii di la Soleil def na ko rek ci cité Xandaar 2 mu di ñaareelu mbëbës goo xam ne rek mi ngi ci diggu Ndakaaru yéenekaay bi ne